jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal jëfal nañ leen bu baax a baax ci àndu beeg teewlu bi ci seen chaîne bile xibaar yi la ca gën a fës dañuy àddu rekk ci avenir u Sénégal Alioune moo ko daal di xamle moom jiitu Afrikajom Center di xeex lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ci samedi bile da ko xamle ginnaaw ndaje bi mu doon amal mu ni nag moom ni mu gisee démarche politique bi maanaam ni ñuy doxalee ci wàllu politique rawatina waa responsable yu parti Pastef bile mu jàpp ni kon ñoom la ñuy waxtaane bokk na ci wàllu échéance électorale yi maanaam kon élection présidentielle yi nga xam ni ci lañu daal di jëm mu nekk ab phénomène boo xam ni kon jamono ji ñëpp nag moom la ñuy daal di waxtaane ba tey mu dégg itam ñuy wax ni Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko mu ne est itam rek dana nekk loo xam ne luy am lay doom luy wéy itam lay daal doon ndax lu nekk am na fii itam lu nekk gis nañ ko fi ba tey rek moom Alioune Tine wax ni ginnaaw rek violence yu métti yi nga xam ne gis nañ ko fii la ci Sénégal ci atum 2021 jàpp 2024 ndaw ñi kon fi mu nekk nii ñu bari nag ci politique bi xam nañ leen ginnaaw rek nguur gi nga xam ne dañ ko fi bëgg di indi indi fi leneen ndaw ñi xeex nañu nag ba sonn te booloo nañu itam rek jëm ci politique bi ndax fës nañ ci bu baax a baax ndax boo xoolee lañu bëgg rek mooy kon euh, soppi réew mi ci loxo yi nga xam ne ci la daal di nekk Ousmane Sonko dana dem ca Casamance daal di ànd ak rek candidat bi di Bassirou Diomaye Faye loolee nag nekk déplacement bu njëkk ginnaaw bi ñu leen féexalee ci kaso bile moom Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye kon ñoom daal di leen bàyyi ngoon ginnaaw ay weer bi ñu leen tëyee mu mel ni kon wàllu loi d'amnistie bi kon dañ leen may rek ci lañ ko jaarale ñu daal di leen di bàyyi ñoom nag ñi fare ci kujje gi kon ñu ni danañ dem ca Ziguinchor moom meer bu Ziguinchor sax moom fi mu nekk nii kon Ousmane sonkolole la daal di xamle ginnaaw rek lu ñeel kon ñoom seen déplacement ñu jóge ci Ndakaaru wayel seen campagne dem foofe nag ba Ziguinchor nga xam ni ñaari ayu bés dong kon moo des ci jongante falum njiitum réew mi ca noonu itam rek kon danañu dem ca gox goxaat ya fu ci mel ni binjo Bignona ginnaaw li ñu sukkandiku ci seen wàllu programme jëm ci bile coalition Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mi le kon taxaw nañu temm ngir nag amal campagne yi ci anam ya mu waree itam daal di amal ab rek mitin bu mag ginnaaw bi fi amoon fi Ndakaaru te fekkee ko dañuy desandi rek ci langu politique bi Lat Diop mu jiite woon nag lu jëm ci wàllu rek tàggat yaram moom nag fi mu nekk nii mu mel ni ci ay gént sax la daal di nekk ginnaaw ñu bare bi ñu taxawee xamal ko ni ko moom nag ànduñoo moom waaye itam nawlowuñu ko benn yoon ndaw ñi ñoom kañu teg bët jamono jii kay mooy Ousmane Sonko moom rek la ñuy topp comme nañ koy waxee te itam moom rek lañu ñu gis fi mu nekk nii ñu ni sax ndaje bañ doon amal dañ ko doon yuuxoo fi njiitu LONASE ñu di kon ndaw ñi ànduñu ak moom benn yoon ni ko kay Sonko rek lañuy topp ginnaaw juróom-ñaari weer yi nga xam ne tëj nañu ko usmaan Sonko moom leader bu baax ci Pastef bi fi woon li mu wax nee na mooy rek day daal di tourner page bi maanaam lépp lu nekkoon kon ci ginnaawam da koy daal di fàtte moom nag ki mu rek daal di joxoñ baaraam mooy Amadou Ba moom daal la teg gët fi mu nekk nii ndax nee na moo raw kon njiitu réew mi Macky Sall nañ ko xam Amadou intérêt dong rekk lay daal di doxal ci réew mi te boo moyuwul kon intérêt Sénégal mën na koo jaay foofee sa bitim réew moom Ousmane sonk delsi di wax ni kon amadu Ba nekkul nit ku wóor nekkul itam nit ku jub tax na kon mu jàpp ni waruñu ko votel benn yoon waruñu ko itam dénk réew mi mu mel ni Ousmane sonk dafa jël njiitu réew mi Macky Sall tegee ko nële ci wàllu débat électoral bi kon daal di wax ni amadu Ba daal àndul ak moom te itam bu sañoon sénégalais yi kon danañ taxaw rek ni duñu ànd ak moom ndax avenir bi ñu war a sàmm nag buñ ko tegee cay ay loxoom danañ ko daal di ñàkk.